Mor Serap Fall ñu ngi ñaanal ñëpp nag képp ku dëkk HLM Fass te di daw jiitu ñu yàlla na yàlla xare àdduna ba man barka démb sama waajur bu jigéen moo génn àdduna mu koy ñaanal yàlla na ko yàlla xare ko sàkku nag si yéen taalibe yi yéen ñaanal ko yàlla àjjana yi gën a kowe ñun ñu fi des yàlla dafa yàlla bàyyi ñuy def lii lii ñuy def nag yombul lii yombul de barke maam Serafal loolu sëñ Saliou bi yomb sëñ Saliou amul lu ñu lu oyof kon dañuy ñaanal ñi fi teew yàlla leen yàlla